téléspectateurs de Salam Vision di leen gërëm leen sant tey euh, seen émission coulisse politique euh, dafay njëkk ñu wax Pape Soumaré Pape Soumaré asalaamaaleykum. waaleykum salaam voilà Pape nga présenté wu devant les téléspectateurs de euh, Salam Vision émission politique ñu wax les coulisses politiques yow la ñu waxtaanal lépp loo xam ne seen seen seen activité. bon mm-hmm. di wax asalaamaaleykum Sénégal. Mm-hmm. di nuyoo di présenté wu rek man ñu ngi may wax Pape Soumaré mm-hmm. Euh, maa ngi dëkk fii Pikine mhm. euh, di jàppale Mouhamadou Makhtar Cissé. ancien euh, di ko mhm. di ko nuyu sax de passage. Mhm. di nuyu Abdoulaye Diaw suñu suñu responsable moom mi ma yebal fii. di nuyu waa Sénégal yëpp d'abord. di nuyu waa Dagana. bi nga xamante ni suñu suñu activité politique foofu lañ koy foofu lañ koy mëne. di nuyu waa Pikine fii di wax ni fii sama kër la. waaw man fii laa dëkk. di rafetlu. li ma fi fekk macha allah mm-hmm. ah, di wax ni Salam Vision suñu suñu kër la. waaw mm-hmm. ah, di xaar. Mm-hmm. Pape jàmm euh, yow doomu Dagana waa nga yéen a ngi ŋànk benn kuréel yu sotti sànni Dagana. la diaspora qui regroupe tous les fils de Dagana. Euh, question mu lay njëkk laaj pourquoi ngeen bëgg euh, ngeen am dimbal jàppale Matar Cissé. waaw question boobu moom dinaa dinaa sawar pour répondre ko. Mhm. Euh, pour euh, définir rek diaspora pour ñu ko pour ñu ko xamul boo déggee diaspora. Mhm. Euh, mooy tous les képp koo xamante ni rek da ngaa màngaay di génn Dagana dem wuti. waaw mhm. moom comme boo déggee diaspora dañ daan faral diaspora ñu ko daan. nekk bitim réew voilà mais comme ñun suñu diaspora. ci même foofu lañ ko inspiré képp koo xamante ni doomu Dagana rek da nga génn. moom te nekk fii wut si ñun da leen wooy da leen regroupé ñooñu. Hmm. def leen wax leen diaspora. Hmm. waaw boo gisee nag ñu jàppale Mouhamadou Makhtar Cissé euh, d' abord c' est un de conviction d' abord. parce que gis nañu njëriñ bi mu bi mu bi amal bi mu amal dëkk ba gis nañu jàppale bi muy jàppalee doomu dëkk ba gis nañu aussi taxaw bi muy taxaw doomu dëkk ba. waaw depuis bu ma ba dara la doon ne dara la ko commencé def tey ba président woolu ko tey. jox ko ay ndombal tàng tey moo tax ñu ñu ñu fas yéene taxaw jàppale ko. bien vrai que génn gouvernement bi ce qui est malheureux. mais dinañ continuer aussi di di ko jàppale incha allah ci ci pour des lendemains meilleurs à Dagana. yow daw nga yaa ngi gis bi lay posé euh, keroog bi ñu wàccee Makhtar Cissé lan lan lan la leen marqué wala fii si Dagana. waaw d' accord d' abord sant yàlla rek. Hmm. sant yàlla d' abord. Hmm. ndax. Euh, comme ni ma ko waxee léegi tout tout léegi ñu koy wax si coulisse hmm. bon dañuy sant yàlla ba pare ndax euh, bu ñu jëlee tey parmi 16 millions de sénégalais. Mm-hmm. ñu tànn si Mouhamadou Mokhtar Cissé jiital ko. président depuis 2012 ba léegi mu koy jox ay nomba tànk échelon par échelon échelon par échelon. Mm-hmm. ba tey mu defar équipe gouvernementale bu bees boolewu si Mokhtar Cissé. Mm-hmm. mu ngi lu dul di sant yàlla waaye duñ si mere président ndax da leen gën a ànd ak moom waaye euh, liñ si xaw a li si xaw a tey suñu xel tuuti rek mooy euh, le fait que ñu génnee Mouhamadou Mokhtar Cissé. indi Omar Sarr bi nga xamante ni moo nekkoon suñu principal principal rival. Mm-hmm. ci biir Dagana. loolu rek moo xaw a mais su dul loolu moom euh, président moom la moom la constitution may. bu mm-hmm. mën a fal. Mm-hmm. mën a folli mooy xool ku ak équipe bi ku mu jox confiance. mu mu fal ko loolu moom ñu si benn benn benn xaar ma yàlla président wax dëgg yàlla. Pape Soumaré euh, fële ci Dagana Covid bi dafa dugg nag doole. yéen les fils de lan ngeen yan matuwaay ngeen jël pour mën a gëstu population yi foofu. Euh, dégg nañ ko si presse à travers les médias la rajo la télévision yéen Goulé Fils ren yan jéego ngeen fa defal ñu fa tax taxawal nag bari na depuis euh, yàlla suturaaloon nañu depuis première vague bi nag. Mhm. jotuñu woon enregistré cas. cas yëpp dañ ko doon dégg mooy li wër Dagana mooy Richard Toll yenn dëkk yi nga xamante ne ñoo wër Dagana. Mhm. mais ñu depuis première vague ba léegi. Mhm. amuñu woon cas euh, boo gisee loolu nag c'est parce que les fils de Dagana ñoom dañoo ñëw taxaw parce que Dagana bu ma Matar Sy rek moo fa nekk mm-hmm. am na yeneen doomu Dagana yoo xamante ne ñu ngi fa ku su mel ni Mass Thiam mooy le coordonnateur de l'UCG mm-hmm. UCG bi ngeen dégg moom mooy coordonnateur mm-hmm. ñoom ñëpp ku si nekk bi ñu déggee ni Covid bi dugg na ci dëkk bi dañu mobiliser seeni seeni ay fonds ku si mel ni Mouhamadou Matar Sy mun naa rek wax ci moom euh, depuis première vague dafa jël lu lu toll onze millions de de nos francs mu séddale ko les onze communes les onze communes du département de ku nekk mu dotale un million pour ñu defar ay masques. ay loolu rek xeex la woon déjà. Mhm. waaye teewul am na ay mouvement yu ndaw am yu nekk si suuf comme ñu suñu suñu boss yi ñu doon dajale seen xaalis. Mhm. di jënd lu si mel ni ay gel di jënd ay masques pour jàppale suñu suñu suñu mentor mi Mouhamadou Matar Sy di ko séddale ci biir ci biir dëkk bi. Mhm. loolu moo ñu waroon permettre woon bi enregistré wuñu kaar. mais il y a eu relâche relâchement vague bi. ba nga xamante ni Covid bi léegi dugg na biir Dagana bu baax a baax a baax ba sax jot nañ fa enregistré ay cas jot nañ fa enregistré ay cas de mort aussi. <laughs> waaw ce qui est déplorable nag mais loolu yëpp euh, doomu Dagana yi ñu ngi def ñu ngi góorgóorlu ci jàppale dëkk bi. Hmm. waaye nag relâchement bi comme ni ñu ko constaté Dakar constaté ko feneen noonu la ñu ko constaté biir Dagana moo tax euh, Covid bi sonal ñu bu a baax. Pape Soumaré benn question yéen da ngeen di yëngu jàppale le Makhtar Cissé ancien ministre volet soixante fils de Dagana question la ñu ko posé yéen dina leen jàngat la situation politique au Sénégal gis nañ tey coow li bari na y' a d' abord l' affaire Ousmane Sonko ren il nay jiixi jaaxa si réew mi yéen en tant que euh, ndaw euh, Makhtar Cissé lan mooy seen xaalis si ñoom moom. waaw euh, situation politique bu Sénégal actuellement c' est trop tendu wax dëgg yàlla ku waxal yàlla. coow bari na de sax. Hmm. waaye lépp rek loo gis si la xaj. parce que ku bëgg akara ni ko ko olof yi di waxee da ñeme kaan ndax politique ak coow ñoo ànd hmm. ce qui est déplorable mooy actuellement ni waruñu woon sax toog di wax politique hmm. ndax instant bi Covid bi sonal nañu trop économie di réew mi mi ngi nërmeelu xam nga chômage baa ngi fii emploi des jeunes waroon nañ si loolu waroon di xeex jëmale foofu suñu énergie waaye malheureusement euh, ñu ngi dugg ci ay ay ay politique yoo xam nga waaw amul benn amul benn sens wax dëgg yàlla hmm. affaire Ousmane Sonko c'est une affaire mm-hmm. civile. mënoon nañ si bañ a sax di attardé wu. Mm-hmm. mais ñun boo gisee parfois yenn politique yi di si wax. Mm-hmm. parce que le principal principal moom ah. moo dugg dugg. Ah te bi affaire yi jugee. mu mu cité. le président Macky Sall. Ah wax ni carrément moom moo ko accusé loolu moo dugal politique yaakaar naa si sama analyse bu ndaw bi ma def loolu moo dugal politique ci wax ji. mais bu fekkoon rek dafa dugg. défendre boppam seetal boppam indi ay preuve yi wane ni moom bokkul ci mbir yi wala la taqewul ci mbir yi ah. amaana politique bi du si dugg mais le fait que mu nommé le président Macky Sall man loolu laa mm-hmm. bi parce la ma déggee euh, euh, mm-hmm. ay montré ay mm-hmm. yoo xamante ni day wane ni lii man taxew ma si laale mu si xam nga mais le fait que daal ñun daal ñu ngi ñu ngi con ñu ngi continuer si li ñu nekkoon. Mhm. mooy jàppale euh, euh, Mouhamadou Makhtar Cissé ci ginnaaw président Macky Sall ñu ci loolu lañu ñu nekk affaire Ousmane Sonko du si attardé wu nañ ko bàyyi ñuy mhm. politique ñu mhm. ko demee ñu pour le moment situation moo ñu sonal Covid bi nëmmeelu ak dëkk bi nu mu mettee loolu moo ñu gën a sonal daal Pape fële ci subaar fële ci euh, Tagada yéen ndaw Matar Cissé yi am na Oumar Sarr l'ancien ministre qui est revenu en force du maire de Dagana est-ce que duñu ay jeexi jaaxa diggante Matar Cissé ak les du euh, d'Oumar Sarr d'Oumar Sarr waaw waaw indi na indi na ay jaax ay jeexi jaaxa nag bari waaw indi na ay complications yu bari ndax fu mu toll nii fi may wax ak yow nii Dagana kenn mënu laa wax ah. lii moo fa xew ci wàllum politique kenn mun laa wax tamit maa ko def li wala man maa mën a téye lii mm-hmm. parce que fi toll nii situation bi métti na métti goo xamante ni mm-hmm. militants yi xamatuñ sax fu ñuy taxaw mm-hmm. fii parce que politique moo doxee noonu instant bi ni ku si amul sa conscience tranquille ama woon ngor ama woon fulla rek waaw ah, di nga basculer de l'autre côté parce que ñëw Omar Sarr du du loo xamante ne lu bees la Omar Sarr nekkoon na fi ministre ah. bu ñëwaatee su gouvernement day kii doo tey doomu daga nag aussi Euh, nekk suñu biir nekk mbokk bu jege. Hmm. bu ñëwaatee si gouvernement bi mënuñu lu dul di ko rafetlu. Hmm. ndax moom démb dafa taxawoon ne ñun baaxuñu président Macky Sall baaxul baaxuñu ñun mënuñu ba tey yàlla dimbali ko xelam dellu may mu dellu si waat ba mën a accepter président Macky Sall ba ñu delluwaat si gouvernement bi loolu mënuñu lu dul di ko di ko rafetlu. Hmm. maintenant nag moom moo ñu fekk si. may wax ak doomu waalo yëpp nañu xam ni. dagana moo dagana Omar Sarr moom moo ñu fekk si bu ñu fekk see nag day ñëw mën a topp suñu ginnaaw rek. ñu mën a continuer liggéey bi bu mënul continuer topp suñu ginnaaw ñu continuer liggéey bi ah nga ni moom mooy suñu adversaire ndax mairie bi duñ ko bàyyi allah kooku mooy Pape Soumaré di euh, ndaw jàppale Matar Cissé ancien ministre euh, dans le gouvernement de Macky Sall nekk ndaw bu yëngu euh, su le plan politique Matar kii Pape li ñuy des sur le plan toujours national gis ngeen ni nag njàng mi gën di jéggi dayoo a ci Dagana ak Dakar fii tey ñu ngi si situation Euh, la situation de l'éducation bu dem nekk si ay jafe-jafe mhm. école yi si ay jiix yi jaaxa si ay tawat ak ay mbëbët mhm. tey lan mooy sa xalaat si njàng mi xam ne dafa indi ay gàllankoor waaw njàng bi moom ak ak covid bi daanaka euh, dafa dafa doon loo xamante ni lu xaw a lu xaw a sonal mhm. dañ koy avouer nag ndax ànd ak président Macky Sall du tee nga nga nga avouer ne bu ay défaillance amee am na tey lu mel ni Covid bi tey waroon nañu mën a jël matukaay yu si war yëpp. ci côté jàng bi. mais tamit jàng bi boo gisee mu nërmeelu aussi. dafa am manque hmm. na benn taux boo xamante ni. Euh, organisation mondiale yi dañ ko dañ ko dañ ko teg. nga éducation pour nga jox ko budget am na taux booy jox si sa budget hmm. mais malheureusement Sénégal ba fi ma waxee yow ni taux boobu ñu àgguñu hmm. moo tax éducation bi dafay dafay sooxe waaw mënul mënul am ay manquement mais dañuy ñaan rek Euh, na na enseignants yeeg euh, professeurs yi gën a gën a gën a indi rek dawal compréhension xam ni euh, Sénégal ba léegi mu ngi nekk Sénégal ba pays bu loolu la daal mm-hmm. ñu xam loolu nga xam ne pays pauvre la ñu mm-hmm. amaguñu doole bi war a mën a tax ñuy jël budget budget bi tool noonu di ko jox éducation bi mm-hmm. nañu dawal compréhension rek jàppul xam ni li ñuy def métier bu noble la man peut-être nag mënuñu mënuñu mënuñu mënuñu matale lépp li oh. ma koy waxee si enseignants yi tamit noonu laa koy waxee aussi ci ci ci ñëpp. ci ah. professeurs yeeg. parents d'élèves yi ñu daw compréhension. Hmm. et puis parents d'élèves aussi ma leen lancé appel. Ah. parce que man fii laay fii laay fréquenté damay wax rek ci fi ma dëkk. Hmm. damay gis xale yi bu ñuy dem malheureusement du ñu takk ay masque ah. kenn si takk masque ñun hmm. ñëpp xale yëpp dañuy ñëw dem wala xale boo gis bu yoree masque si loxo bi la koy si loxo bi la koy risque la aussi waaw ñu noonu kon daal na parents yi gën a redoubler de vigilance ci kii bi ndax bëgg nañ euh, dem ba année bi jeex te duñu enregistré benn comme commencé nañ ko enregistré nag ah mënuñu dundul ñu gën a yokk effort yi rek pour ñu mën a éradiquer mal bi fi nekk ci école les coulisses politiques dalal tey Pape Soumaré di ndaw boo xam ni mi ngi si ginnaaw Makhtar Cissé di ko jàppale ancien ministre du président Macky Sall. Euh, Pape beneen question moo leen posé ñu jëm si biirum élection locale yi. coow li bare na seen mandat daaw ba léegi muy jeex. ba léegi amagul élection jëm si gox goxaan yi jiitu réew la bari dans son camp. yow yaakaar nañu est-ce que élection yi dina am ndax du waaw actuellement nag dina jafe ci man loolu moo wax ba xam élection dina am wala du am mais euh, gis nañu effort yi nga xamante ne fan ni président mu ngi koy def parce que boo xool euh, si dialogue politique bi. ñu ko doon waxtaanee bu baax. parce que booy xool opposition bi moo xawoon moo laajoon. Hmm. ne nañu auditer fichier bi parce que fichier bi fi nekk baaxul. parce que nag mënoo laaj fi audit fichier ñu nekk di ko càmbar di xool naka la ñuy auditer fichier bi nga wëlbatiku ne nan la jàppal mm-hmm. na ay experts a mën a ñëw euh, mm-hmm. nag day xam naa nag bu ñu génnee si càmbar yooyu noonu jàpp date élection yi yow am nga yaakaar si dialogue politique waaw bu baax mm-hmm. bu baax lu tax am si yaakaar nag mooy euh, dialogue politique bi tous les partis politiques sont représentés. Hmm. waaw am na ñuy wax sax ne ñoom ñu fa mais tous les partis politiques ñoo ngi ñoo ngi ci biir. Hmm. Euh, société civile ñu ci biir hmm. ñëpp ñu ngi ci biir. loolu tax ma am ci ma am ci yaakaar. te wax dëgg yàlla boobu ba léegi def na ay jéego ndax sax booy xool. Euh, loolu mooy indi euh, gouvernement élargi bi nga xamante ni moom la président boo xoolee bu Idrissa Seck ñëwee Omar Sarr ñëw ñeneen ak ñëw. ak ñi nga xamante ni ñu ngi ci yoon bi di waale ñëw. ñooñu ñëpp gisee dialogue politique bi. avancé bi mu avancé moo tax ñooñu nangoo. nangoo ñëw bokk ci gouvernement bi. Hmm. man ci noonu laa ko jàngatee ci dialogue politique le président Sall dafa indi ay experts yoo xam ne jóge bitim réew euh, ñëw saytu le fichier électoral pourtant am na yoo xam ne am nañu xam-xam boobu hmm. yow lan mooy sa xalaat si mbir moomu. waaw loolu loolu moom loolu dégg naa fan yii yëpp ñu koy wax nag. ñuy wax ne président bi jël ay waaw waaw waaw loolu tamit loolu tamit c'est c'est déplorable nag. mënoon nañu jël ay doomu ah, Sénégal. ñu xam-xam waaw am nañ ko bu baax sax bu baax. mais dafa fekk ni rek. dafa am ñoo xamante dafa am benn rapport de confiance boo xamante ni dafa am suñu diggante ak le président. Mm. te opposition bi dafa yàgg di crier. ne président jubalul wala jaaralewul yoon. Mm. moo tax parfois président.

gis nga tey euh, mbëkk mi ren fay boo yu bare euh, yaakaar tas na pare ñëpp a découragé euh, monsieur Pape Soumaré. Mhm. waaw fi nga daanalee rek foofu laay foofu laay tàmbalee di di wax mooy mbëkk bi. waaw waaw di jaale ñi nga xamante ni ñëpp sama ay moroom jeune la ñoo xamante ni tey waruñu woon sax génn réew mi bay wuti. Hmm. tey boo demee ba dégg ñi mbëkk ñu naan am na un jeune de 14 ans bu si nekk. kon ça veut dire que la situation est catastrophique. Hmm. mais nag duñu ko duñu ko duñu si attardé wu ndax économie bi. Euh, ni mu daanoo waxuma la sax mbëkk mais leneen leneen mun na fi am il faut s'attendre à tout parce que Covid bi mu ñëwee ba léegi euh, dafa nërmeel économie àdduna bi yëpp. lu bari waaw lu daaneel économie États-Unis hmm. daaneel économie feneen ak feneen. xam nga jaaxal tubaab yi ñun waxtu Sénégal un petit pays boo xamante ni c'est hmm. bi bu ñëwee da koy hmm. moo tax ñuy wax nit ñi nañu gën a respecter gestes barrières yi. nañu respecter mesures que loolu rek moo ñu mën a génnee. loolu rek moo ñu si a génnee économie bi nag. fi mu toll nii moom nërmeeru na mën nañ wax. Hmm. parce que suñu a baax te boo hmm. dina hmm. kon daal ñu ngi ñu ngi ñaan ñëpp. Euh, di ñaan yàlla aussi feebar bi gaaw bu gaaw gaaw parce que bu gaaw bu jógee am. Pape Soumaré beneen question ma lay posé surtout sur le plan tey euh, bu njëkk ba nga daan dégg kujje bi di wàcc si mbedd euh, di di sensibiliser tey daal gis nañ opposition boo xam te kenn kenn kenn gis ku leen Sénégal ñoom ñoo fi nekkoon. di di ŋàññi le fichier. Mhm. Euh, le président politique am noo gisee opposition xam kenn déggu ko leen. waaw waaw opposition bi moom. kenn déggu ko leen waaw waaw loolu tamit. mais mais ba tey ñoom ñu ngi am na si ñoo xamante ne ay opposition yoo xam ay opposants yoo xamante ne ba léegi ñu ngi def ñu ngi def seen rôle. man man opposition Sénégal sax dama xaw a jaaxal ndax man opposition bi nii. musuma xàmmee bi opposition man opposition lu ma si xam. Hmm. comme man tey tey su ma nekkoon opposant tey tey bu gouvernement tegee un programme wala mu teg benn benn benn benn affaire. man damay ñëw teg un programme parallèle. Hmm. maanaam gouvernement proposé man ma proposé mais ñun suñu opposition malheureusement. Hmm. li ñu xam si opposant mooy kuy wax. kuy marche kuy dóor te loolu du opposi hmm. opposition. man li ma xam si opposition mooy opposition da ngay ñëw état pro euh, indee programme. yow indi programme bu bu parallèle. xam nga teg say projet. tey jii tey tey tey mën naa jox benn exemple bu ndaw rek. mooy ñi nga xamante ni dañoo dañoo bokkoon ci ay candidats lañu woon ci élection yi passé mm-hmm. kaar naa nous étions au nombre de cinq. Mm-hmm. quatre ak le président Macky Sall. tey ñoom ñëpp ku si nekk amoon nga tey benn programme. tey le pro programme yi nga xamante ni le président Macky Sall proposé woon na ko euh, mu ngi mu ngi mu ngi mu na projet économique bu si mm-hmm. nekk. mais tey normalement tey opposant opposant bu nekk waroon nga tey indi benn benn benn programme yoo li nga waxoon ci côté économique nga proposé ko président. parce que président bi mbas bi ñëwee ñëpp la woo. ñëpp la ñëw taxaw képp kuy opposant ba si Sonko mii tey bërki dee moo jaay ñëpp la woo mhm. waxtaan ñoom tey man pour man ku si nekk ba ngay dem da ngaa waroon yóbbaale sa programme mhm. lépp lu nekk si wàllum économie santé ah jeunesse lépp emploi des jeunes nga ñëw proposé ko président nag man de sama programme bi ma amoon bii passé mhm. lii la woon président boobaa da koy jël parce que y a des yi nga xamante ni des opposants yi dafa dëgër bopp mm. te tel n'est mm. ndax boo xoolee si aide alimentaire yi bi bi première vague Covid bi mm. président avait proposé cinquante milliards ou bien cinquante deux milliards de ce genre pour def ko aide alimentaire mais boo gisee tey aide alimentaire bi dem soixante neuf milliards parce que Sonko moo ko proposé Sonko moo proposé président ne ko li nga def ci aide alimentaire pour sénégalais yi cinquante milliards dafa tuuti. Hmm. su ma soñoon nga yokk ma tax président jëlee ko cinquante milliards yokk ko soixante neuf mooy hmm. hmm. ñëpp ñu boot ci ginnaaw président parce que loolu rek moo ñu mën a génne ci lii nii. ñu benn alliance bu fort teewul nag opposition dafa baax ci réew. un pays démocratique dafa am opposition bu forte bu dëgër mhm. waaw bu mel ni comme bi fi bi fi bi fi nekk nii waaw maintenant nag comme si période Covid la nekk peut opposition bi il préfère pas descendre sur le terrain parce que boo wàccee si terrain ça va dégérer générer des foules mhm. doo fi mën a nekk di def yenn activité mhm. politique yi li mën a def mooy yenn activité yi ndaw ndawaan nii rek man je sens que opposition baa ngi fi tey la waalu gën a aay ak seen projet pour la ville de Dagana et surtout bu bu euh, yi nag euh, si département bi bari na yamuñu rek commune bu Dagana mais si département bi yëpp. wàllu bi yëpp quoi waaw sur les onze communes du département de Dagana yëpp. bëgg nañ am nañ fa ay projet bëgg nañ fa teg ay mbir. waaye balaa nga naan naam ne fa. tey il faut ñu. Euh, le le pouvoir pouvoir bi fi nekk ci boppam. Euh, naam sax Omar Omar fekk si nañu. waaye ba léegi dafa des. il faut que ñun ñu contrôler le département pour mun a imposer suñu politique. parce que booy xool suñu rival suñu rival bi fa nekk ñun Omar moom mooy contrôler dëkk ba léegi. il est maire. ñoom ñoo gérer département bi ñoom ñoo gérer lépp. waaye ñun il faut que ñu mun a gagné leen génnee leen foofu parce que gestion bu mairie bi baaxul. boo xoolee tey chef lieu de département département. Mhm. mais booy xool di saa tool a bu la tey bu la envoyé woon tey damay tooñ parfois sax sama mbokk wàllu waay leen wax tey bu woon tey cent mille francs tey. Ah. pour nga retirer si banque wala kii amu fa. Hmm? amu fa. je ah. suis désolé hmm, hmm, de département mais amu fa. mais a des ah. moo tax yooyu yëpp yooyu yëpp tey pour dindi ko tey jii il faut ñu dindi fa équipe municipale fa nekk. pour mën a indi ñun suñu suñu suñu pour ñu mën a pour ñu mën a doxal loolu. am na ñoo xam ne nag boo leen waxee. doguma la est-ce que ah Salam Vision préparé na. Mhm. doon def reportage à Dagana pour leeral askan bi ak ah, li nga loolu moom loolu dinañu neex trop. waaw loolu moom bis bu ñu paree pour def ko man nii maa di accompagner. waaw teg bu ñu demee ma tegal seen. gis nga xam ne li ñu fi wax nii yëpp du lu ñuy tâtonner. du lu ñuy du li nga xamante ne dañ koy làmb. Ah, am na ñoom Matar Cissé am na ñoom pour créer des ce qu'on des structures économiques des banques euh, ñu war a jot seen i euh, yenn ndàmpaay fa lañ fa koy jotee. Ah, ma la wax rek dem ba risaatoon rek comme nga koy jëlee lépp. loo bëgg même soo bëggee sax approvisionné wu si wàllum marché gi yëpp. da ngay dem ba da ngay dem ba risaatoon. waaw la nga jéggi deex bi. jàll du côté de Mauritanie. loolu nag ñun doomi Dagana yi ñun loolu neexuñ. Mm-hmm. wax dëgg yàlla neexuñ. Mm-hmm. mais loolu rek day wane ni rek un maire bi fi nekk depuis vingt six vingt six vingt trois ans. depuis quatre vingt seize ba léegi ba fi may waxee nii moom moo nekk maire. Mm-hmm. mais mënuñu tegal dara. un kilomètre goudron def ko tey le peu de goudron bi ñu fa am tey jii nii PUDC moo fa def muy programme président Macky Sall. tey il a fallu que benn doomu Dagana bu mel ni amaana tey jii ñi ñu génn ñëpp suñu borom mu ñuy dimbali ñu ngi am as tuut mhm. mais peut suñu doom suñu suñu jarbaat yi wala suñu mag yi wala suñu yaay yi nekk foofu tey jii nii mhm. dëkk bi si ñoom métti goo xamante il nous faut benn doomu Dagana boo xamante ni année wala chaque jour wala sax àllarba bu nekk dina mën a toog ak euh, le président moom mooy suñu combat mooy conseil des ministres dañoo bëgg di am toujours tout le temps doomu Dagana bu fay toog mhm. di mën a xeexal Dagana di indi boo xoolee bi tey boo demee électrification rurale bi ñu dox foofu bu baax baax ñi ñu ngi am courant. Mm-hmm. ndox nag fan yii fan yii nag ñu ngi woote ñu ngi woowaat waa waa waa waa CNO. Mm-hmm. dañuy jàppale ndox mi metti na foofu. Mm-hmm. waaw lu toll ni tey dagg na boo daan tey da naan waalo mar naan maru naan waaye tey moom waalo mar na. waaw nañu si jàppale waat bu baax a baax. mooy li may mooy li ma daal di waat rek mooy gis nga yooyu yëpp bu ñu ko bëggee. il faut ñu am benn doomu Dagana boo xamante ni moom mu ngi toog sur la table du président. Mm. di mën a défendre Dagana di mën a jël si programme yooyu di ko indi. ñu loolu mooy suñu nga xamante ne ñoo nekk fii nii maintenant nag ce qui est di mm. mi ngi siy def li mu mm. xoolee tey tous les voiries yi nga xamante ni nekkoon na moo jalonné euh, euh, commune bi. am nañu changé réfectionné ko bu baax. panneau solaire yi tamit ni mu demee Dakar nekk Pikine nekk feneen noonu la nekkee biir Dagana defar nañu ba fépp mu ngi leer macha allah. waaw li si xaw des rek mooy côté infrastructure ñoom am bu bees ndax gis nga suñu équipe bi nga xamante ni moom moo fa nekk tey équipe euh, suñu équipe bi AS Dagana. Hmm. Euh, tey bu bëggee recevoir tey na ñaar rencontre yoo xamante ni Richard Toll lañ ko lañ ko mooy sax comme comme yeneen stade yi amuñu ko. Hmm. waaw yooyu yëpp c'est déplorable mais nag loolu yëpp de hmm. indi de bu bees. équipe bu jeune équipe boo xamante ni defar réew mi rek moom moo la ñor te am nañ ko nag. Mm-hmm. am nañ ko ba mu doy am nañ ko ci di côté di mouvance présidentielle mooy Benno Bokk Yaakaar bi nekk biir Dagana am nañ équipe ko mën. Mm-hmm. waaye am nañ ko ñun ñi ne ay ñooñu Mouhamadou Makhtar Sy lañ am nañ ko am nañ ay nit yoo xamante ni capable nañu mm-hmm. relever le défi. j'espère que le ministre Makhtar Cissé nous entend très bien et tous les am solo ndaw yu bëgg seen dëkk mooy la jeunesse de Euh, politique du par par du saaga du xaste mais defar sa defar sa sa gox defar sa réew loolu mooy politique di répéter encore euh, Matar Cissé mu gëstu ndaw yi Omar Sarr le ministre euh, actuellement de des mines et la géologie balaa ñu tëj Pape Soumaré en tant que jeune Dagana lan ngay mën a wax tey à tous les sénégalais wax nañu Covid bi ndax Sénégal réewum démocratie la réewum jàmm la gis nañ tey xiroo ngaayo bi gis nañ tey coow li bari na Pape si dernier message bala ñuy tàggatoo. waaw sama sama message nag dama koy jëmale si si si ndaw yi d'abord. waaw nañu xam ni réew mënul développer sans discipline. Hmm. réew mënul développer sans dëkk bi set. ndax loolu si ñun si ñun si ñun lay dépendre ñun jeunesse bi. Hmm. parce que ñun ñi tey tey tey je suis désolé mais tey jeunes yi. tey amatuñu conscience tey man mi tey en tant que jeune tey tey xam naa ñu may gis ñëpp ci Salam Vision tey bu ñu gisee bu ñu gisee booy bi dañ naan yow booy da nga bëgg politique mais politique du dara mooy na ñëw maanaam defar sa gox man loolu moom loolu moom ma yëkkati et aussi di ma may occasion tuuti parenthèse rek ma wax ak ma wax ak ñi nga xamante ne ñoo dëkk fii ñi nga xamante ne gox bi ñu nekk ni tey defee émission bi hmm. euh, buñ la gisee ngay wax dagana dagana dagana te juddoo fii hmm. daf leen di xaw a jaaxal tuuti di leen wax ne nag ñun suñu politique boo gisee ñuy wax dagana dagana rek c'est parce que luñ public lépp lu ñuy def rek pour le moment nii dagana la mais am nañ ay projet yoo xamante ni ñu ngi ñëw ci kanam hmm. amaana tey bis dina ñëw tey ñu ñëw suñu fi nga xam ne fi lañu juddoo ah. ñëw teg teg dara mais pour le hmm. jàppale mi xamul Mouhamadou Makhtar dagana la nekk hmm. di wax jeunesse bi nañu gën a góorgóorlu li si kanam raw li bët waaw nañu bañ a topp ñi nga xamante ni xam nga ñoom ñuy jëmale fu baaxul ñun ay jeunes lañ ñu ñoo moom suñu réew ñu ñoo ko war a tabax amul benn tubaab bu jógee si àll ba ñëw di ñu ko tabaxal amul chinois ñu ko tabaxal mm-hmm. ñu a tabax tabax suñu réew ñu ñëw mën a defar une économie ñu mën a defar lépp waaw jeune bu daal jeune jeune daal da war a xam ni jeune nga mm-hmm. euh, sa réew réew mi daf ñoo soxla nañu bàyyi màngaani beeg yëpp ñu toog ci biir réew mi lépp lu ñu bëgg am na fi mm-hmm. tey boo xoolee jeunes yi bu ñu demee tey bu ñu génnee tey à l'extérieur tey liggéeyu ñoo koy te malheureusement bi ñëw du ko def Sénégal tey gis jeune boo gis tey mu ngi rêve tukki mais ñun ne bu ñu tukkee kan mooy kan mooy gérer réew mi kan mooy doxal réew mi tey da dem si yenn gox yoo xamante ne biir Sénégal au fin fond du Sénégal li dafay gaañu sax ilaaj dañuy xaar ba nit ñi ñëw pour ñu mën ko dem denc ji góor ñi ñëw pour mën ko denc ji parce que ñëpp dañu bëgg a dem wuti uti nañu wu hmm. nañu uti ay formation nañu am nañu uti ay formation surtout su les métiers du pétrole et du gaz ndax gaz mu ñëw mu ngi feeñ suñu dëkk ak pétrole nañ ñëpp nañ dem formé wu ci ci métier yëpp tey métier bu menuisier bi mën na si jariñ soudeur bi mën na si jariñ xam nga tôlier bi mën na si jariñu ñëpp mën nañ si jariñu parce que tey jii bu ñu ba te war a expli exfiltrer pétrole beeg gaz bi tey tey jeunes yi day am ay pipeline yoo xam day jógee fële di le monde chauffeur bu kenn xeeb benn métier ñu ñëpp formé wu ñëpp ut ut métier mm. bi balee wala gaz bi génn ñu ñëpp dinañ si mën a jariñ dinañ si mën a waaw loolu nag bi Mokhtar Sy nekkee ministre de l'énergie Euh, wax dëgg yàlla def na si liggéey bu am solo. Hmm. tey am na beneen ministre boo xamante ni moo ñëw foofu si département boobu ministre Sophie Gladima. Hmm. di ko ñaanal moom tamit yàlla na yàlla na ko suñu borom may mu réussir. Hmm. di wax jeunes yi daal ah, nañu gën a góorgóorlu rek. nañu gën a góorgóorlu te suñu biir. si joxante suñu biir nañu gëm suñu bopp aussi. nga xam ne ay Sénégalais lañ ay karaw yu ñëw lañ yëpp tey borom karaw bu ñëw ñàkkul dara. waaw jërëjëf euh, monsieur Sakho je vais rajouter quand <clears throat> La première question que je voudrais vous poser, mm -hmm. vous êtes derrière Amadou Mokhtar Sissé. L'ancien ministre. vous êtes derrière mm le personnage ou vous êtes sous la bannière de la mm -hmm. Bon, mën nañu wax euh, les deux ah. mën nañu wax les deux parce que euh, Mokhtar Sissé ku ko xam xam ni euh, président lay jàppale. Mm-hmm. président lay jàppale mais ñun suñu ay structures yi nga xamante ni moom la ñu yor. ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar. Mhm. bokkuñu nag APR. waaw mais ñun dañoo rey structure yoo xamante ni c'est à côté. Mhm. boo tey boo demee euh, à Dagana. Mhm. am na ñu yor euh, su ma euh, am na ay structure APR yu fa nekk. am na ku jiite COSER. am na ku jiite APR au niveau du département. am na lépp mais ñun ce sont des structures yi nga xamante ni nous sommes à ñun dañuy ber suñuy fi bopp parce que. parti boo ko bëggee doxal doo ñu fekk si parti bi li fa nekk nga ñëw dugg fa bëgg a liggéey si parti bi da ngay bàyyi parti bi mu liggéey liggéey ñu nekk à côté suñu ay structure suñu ay comité yi nga xamante ne moo nekk un peu partout Sénégal ñu siy jàppale le président Macky Sall. d'accord les les élections locales municipales passées nous avons eu affaire à un cas Sall. qui s'est rebellé et qui est parti sous sa bannière si aujourd'hui le président Macky Sall nomme comme candidat Omar Sarr. mm Qu'allez-vous faire? Est-ce que nous devons nous attendre à une rébellion de Mokhtar Cissé mhm. qui ira sous sa propre bannière? non non loolu moom du am. Mhm. incha allah loolu moom mhm. <laughs> euh, mais nañu xam ne daal bis bu bis bu président defee loolu. Euh, dina gis euh, une très très très déterminée. waaw du ma ni nag du bu ñu defee loolu du ñu ko nangu. parce que tamit nit da ngay am kilifa ñu dañu am suñu kilifa. Hmm. Mouhamadou Makhtar Cissé mooy mooy suñu kilifa. waaye Mouhamadou Makhtar Cissé aussi président mooy kilifaam. Hmm. léegi bu ñu demee ba ci ba loolu war a war a xew. ah peut-être dinañu indi des discussions préalables yu war a mën a permettre ñu war a nangu Omar Sarr parce que tamit mënuñoo ñëw man tey bokk naa si jeunes yi nga xamante ne depuis 2012. Hmm. maa ngi xeex Omar Sarr depuis 2012. donc Omar Sarr mu fi nekk am doole. te bëri naa si ay morom ah bëri naa si ay morom yoo xamante ni tey seen dalument ah, mm. ñu ngi fi doon xeex Omar Sarr depuis 2012 mm. ba si xamante ni tey ci ndigalam laa fi mm. Omar Sarr mu yor ay ministère yor ay directeur am ñu ko doon xeex tey mënuñu ko xeex ko xeex di ko xeex di ko xeex ba tey 2020 mu ñëw rejoindre le pouvoir ñun ñu ne ñun ñu ne ñun dañuy wëlbatiku topp si ginnaaw Omar Sarr léegi ñun bu ñu nit ñi lan la leen di wax ñun fi ñu demoon démb na fa Omar Sarr baaxul léegi ñun après dañ fa war a ñëwaat leen tey ñëw leen Omar baax hmm. parce que ñun sax ñun ay xale lañu dañuy politique mais lépp li ñuy def dañ koo gëm hmm. te duñu yàqal suñu diine duñ si fen duñ si sàcc duñ si duñ si duñ si duñ wax lu rek loo xamante ne dañu si xeebee hmm. tey fu ma demoon tey jaafal ne Omar Sarr baaxul mënu ma fa jaaraat ñëw ne leen Omar moo baax defee leen ko candidat. Hmm. kon loolu bu amee tey dinañu mettre si benn situation bu critique boo xamante ni duñu xam nu ñu koy waxee. kon daal ñu ngi ñu ngi ñaan daal bis bu loolu naree am nañu président dimbali. waaw hmm. ah, ñu toog ñu waxtaanee ko ba pare balaa ñuy def ci loolu. je vous remercie. voilà di di gërëm bu baax suma di gërëm euh, Pape euh, Soumaré doon ndaw fi toogal Makhtar Cissé ancien ministre euh, di gërëm aussi tous les téléspectateurs de Salam Vision. Pape Soumaré ñu ngi lay gërëm di sant mbokk noonu seen émission coulisses politiques à la présentation Cheikhou Sakho jàmm ak jàmm.